yëpp des gannaaw parce que génn wàll gi yëpp jigéen ñi ak ndaw kon nag foog ñu boole ndaw ñi ci mbir mi jigéen ñi ci mbir mi pour Afrique mun a dem kanam Gambie noonu la ñoo def moo tax président bay bàyyiwul jigéen ñi gannaaw ci lu nekk mu ngi leen ci boole foog naa wax naa la fii jigéen business women yi mu yóbbu ci biti agriculture lim ci sumbal loxoom dimbale Gambia Women's Federation ay yeneen jigéen ñi nguur gaa ngeen dimbale jigéen ñi nga xam ne ñu ngee béy ñu ngee diggee dimbale jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ci naako yi ak foog naa def ne li nguur gi moom li mun mu ngi koo def ci wér gu yaram gis nga ci li ci nguur gi def fi mu nekk nii benn jaay du fey eh, pour dem lopitaan yaa sa doom jox na la free maternal and child health care kon loolu sant yàlla tey jigéen ñi dee ci mu ah, mucca am doom foog naa mu ngi gën a wàññeeku soo gisee suñ suñ liñ xayma nii soo ko gisee li nga xam ne wàññeeku am na ci soo really man foog naa ne ñu ngi jëm ci lu bari soo demee eh, jàng bi jigéen ñi am nañ ci eh, jëm kanam kon loolu lu jar la pour ñu màggal ko sargal suñ boppa sargal suñ président sargal suñ réew sargal suñ nguur sar sargal gambien si yëpp sargal africa looloo tax célébration bi foog ñu def te at mu nekk dañ ko def waaye suñ ko defee itam dinañ dee xalaat texa texa yi ñu am ak naka lañ ko mun a gàllankoor pour jigéen ñi mun a jëm kanam ba nga affaire bi ñaar di nga célébrer waaye itam di nga seet gàllankoor yi challenges waaw nga seet nga koo hmm. ah, seetee nag His ah, Excellency na jigéen ñi si bépp fànn si liggéey waaye soo seetee si mbiri politique si ah, parlement bi daal dafa mel ni daanaka ñeneen ci jigéen rek lañ am. lan nga bëgg a wax jigéen ñi nga xam ne ñoom ñu ngi toog bëgg ñoo bokk ci biir politique xaw mhm. ma nag ndax financial problème la ndax jigéen ñi seen bopp ñoo leen dooleel mhm. waaw ah si ba mbir mi lu bari la benn dañoo ne soo waree nekk na sa assuré foog naa da nga war a jàng mhm. ba tey loolu la xam nga jigéen ñi ñu ci jàng soo seetee pourcentage bi téeméer bu nekk xaw ma ñu ngi wax ne literacy 35 percent waaw xam nga loolu bari téeméer bu nekk fanweer ak juróom kon ñi see mun a am opportunité pour liggéey ibil ci nguur gi wala dem parlement wala dem nekk ministre mu ngi xaw a wàññeeku ñaareel bi yenn seen jëkkër yi sax ñoo du nangu ñu dugg politique sax yow soo sa jëkkër du nangu boobu oo sa waajur yi sa mbokk ñetteel bi am am gi nekku fa parce que politique dafa laaj xaalis de parce que soo dem ci organise rally foo nga yóbbu xaalis soo waree dem jox ñi ñi lekk parce que doo oo ñi ñi lekk jox leen la lekk soo yóbbu ñi ñi yi itam foog nga jox leen moto loolu yëpp xaalis la te jigéen ñi ñaareel ah xam nga amuñ lu doy soo pour ñu dugga ci du yomb yeneen itam politique dafa dafa dafa laajte li ñoo ooyee thick skin maanaam mooy bul faale luñ laa wax te jigéen dafa am kers kuñ ci wax ne waaw yow néeg nga xam nga soo xasee dugga politique rek dina xas soo xasee am place ci politique rek xamal ne pare nga ñu xas mm. dinañ laxas xas ci internet ñun ñi yëpp lañ ko def bàyyiwul kenn mm. dinañ la xas loo musu de lu nekku sa jikko nañ la ko wax mm. dinañ la tuumal lu bëree bëri loolu nag politique demee waaye foog nga ñemee loolu nag na ko góor ña ñemee mënu nga ko ñemee te foog jigéen ñi tam sànni jigéen ñi kat jigéen ñi sànni kat dañu soo fay jëmee la waaye <laughs> soo taxawoon tey dañ na ñi ci ñenn ñi ci ñoom ñu sànni góor gi bàyyi la na sa so kon loolu liggéey bu bu metti la te lu bari la laaj mooy rek ee eete te foog naa nguur gi ñu ngee def liñ moom civic education council ñu ngi ko def te xam naa ne soo laajee on bu speaker sax ku dem parlement ñoom tam ñu ngi ci di gën a e jigéen ñi ba pare luwaa yaa ngi fi ñu ko taxawal di seet naka la jigéen ñi mën a participer te itam suñ constitution bi nag is very progressive bi ñu am Gambie parce que defe ne li dooleel na jigéen parce que bu njëkk ba constitution 1970 bi am waxutoon yu bari yoo xam ne tey ñu ngi ko ci second republic constitution kon jëm kanam am na te dëgga dëgga président wax dëgga taxawu na jigéen so léegi li ci des ci ñun la ci society bi la parce que duñ sànnil jigéen kat góor ak jigéen duñ sànnil jigéen jigéen ñi ñëwee ñoo ñoo foogoon comme wax naa la rek gàllankoor so loolu lañ war a nga gis jigéen ñi mun a bëri waaye du tee président moom li mu def na ko soo seetee cabinet tey 33 pour cent yëpp jigéen la ah kon def na de parce que euh, passé nañ li United Nations laaj kon loolu sant yàlla te xam naa ne dina gën a jëm kanam ndax sunu assé bi comme ni ma la mënuñ ci dara parce que sànni karta euh, local government election sànni karta moom itam jigéen président mun na def na li mun tànn na ay jigéen def leen as area councillors tey bëri nañ fa ñim tànn nominated most of them jigen la hmm. nak ñi ñoo sànni carte ah goor ñi ñoo goor ñi lañ de taxaw hmm. sànni luñu jigen ñu bari carte waaye amna ci jigen nak ñu taxaw ñu gàdde itam carte hmm. wa kon nak bir mi non la société public service the same thing ñaka jangal jigen jigéen ñi moo dee tax ak sey yi mo de tax ñeena ñi duñ jël public service jobs waaye aw ñu poste la do bugg a dem ci den liggéey parce que sa jëkkat na nangul xam nga yooyu yëpp dafa gàllankoor jigéen waaw so loolu nag dañ ko war a seet ñu gën a taxawal mbiru jàng mi la yéen koo dëgëral président moom li mu mun def na ko fa yow gis nga président empowerment of girls education project kajab gis ngeen ko gis ngeen Jammeh foundation gis ngeen eh, educational trust fund li mu mun mu ngi koo def waaw des na nag ci waajur yi ñu bàyyi seen doom yi nag ñu dem jàng bu kenn dem jàng ba egg high school nga dem mee ko jigar parce que loolu lañ dee def teel a sëy yi la moom ñu dee xaw a delloo gën a so yooyu yëpp dañ koo seet all this traditional practice nañ ko waxtaanee seet naka lañ koo gàllankooree pour itam ñu bàyyi xale ñu jàng ndax ñu gën a sori sëy itam du romb laa foo na dañ dee wax ne soo eggee 35 ci nga jur doom dafa lifi nag yooyu waaye ñu bàyyi la ñu teel a jàng ba 18 ba 20 mu at least mu tane so loolu ñu ngi koo ñaan ci waajur yi euh, li ma la wax de gàllankoor yi bari nañ waaye mun naa laa wax ne daal am nañ yaakaar waaw ci nguur gi ñu am nii nga xam ne itteel na jigéen ñi mbir jigéen ñi mooy soxlaam ak ndaw ñi man am naa yaakaar ne dinañ jëm kanam waaw am naa gàllankoor yu bëri waaye jëm kanam itam mu ci ah jërëjëf waay yow excellence yi bëgguma jël rek sa taay di la sant di la gërëm rek ah, ci waxtu bi ñu may pour ñu mun a amaat ah, yow waxtaan bi di la ñaanal rek yal nga yàgg suñu kanam yaa sa ah, ñi nga liggéeyal ñëpp fi jërëjëf Música